ngi lay fay. Euh, tey mu nekk bis bu rafet ci yow tey nga xewle sa mbokk say am di jàmm ñëpp daal di teew fii sa kër nan la la ah, waaw mbégte comme ñëpp bu ñu amee xew nit ñi wuyu si leen dañuy kontaan dama kontaan trop. nit mën na luwe luwe lu ne ba mu des nit moo tax dama kontaan. Mhm. Ah, dama koy wax love you daf ma nopp mais maa ko raw. maa ko raw lool parce que ki nga xam ni dafa romb jigéen ñu bëri ñëw jox la xolam mu sincère lool parce que réew mi kenn dofatul ku ne xam nga ko la bëgg ak ku lay nax man duma ko wax lu dul Baby I love you maa ko gën a nopp yàlla nañu yàlla jàppale ñu yeggale ak suñu sago ci barki Seydouna Mohamed li yàlla namm ci lu baax lépp ci suñu diggante yàlla na ko yàlla def ma nekk jabaram mu nekk sama jëkkër tey eh, nit ku nekk da ngay ñaan loo dugg ci say mu nekk bu rafet. Mhm. tamit mu nekk loo xam ne à vie lay nekk. Mhm. yow dugg nga ci duggaat ci duggaat cette fois ci lan li ñuy wax mooy ñun yàlla moo ñu sàq yow boo sañoon doo ñuul da ngay xees. chaque jour nga gis yàlla bind nit mu ñuul muy xeesal yàlla bind nit mu xees ba pare bëgg ñuul yàlla moo ñu sàkk di ñu may jëkkër heure bu ko neexee saa yu ñuy may nag dañ koy ñaan yàlla na nekk suñu dernière jëkkër mais dawuñu dara ci suñu borom lum ñu jox comme nattu ay taalibe borom Touba lañ xam nañ ki ñu doon fees nañ fi ñu toog lu ñu yàlla jox dinañ ko jël ndax suñu borom du la tegloo attanul waaw bii yàlla na nekk suñu dernière jëkkër mais nattu yëpp dañu koy nangu waaw te mu nekk jëkkër joo xam ne jëkkër ju am personnalité lay doon ci li ñuy xalaat ci moom ci mbaax ak classe lépp yal na ko yàlla def ci moom ku mën a téye jigéen te am nañ ci yaakaar ndax euh, ñu ngi soog a door mënuñoo wax lépp waaw xam ne moom nga koy jox duñ xale ku sëy sëyaat sëy sëyaat doo xale amatuñ ay poème yu ñuy sànni kenn li ñuy wax mooy yàlla nañu Seydina Mouhamed tëyal suñu sëy may ñu ay njaboot yàlla defal ñu suñu njaboot mu nekk ci yoonu lislaam loolu rek la ñu bëgg lu ñu am tuddee ko sëriñ Touba wala Seydina Mohamed bëgguñ dara lu dul loolu waaw kay ñun ay waa kër borom Touba lañ dañuy nangu lépp. waaw bés bi li ma ci nar mooy dund ko sëy dañ koy siiwal ñëpp xam ni macha allah suñ borom mayaat na ma borom kër parce nit a ngi jooy jëkkër amu ko kon man bu fekkee ne saa yu ma ko bëggee yàlla may ma ko dama koy sant di ko gërëm ndax du sama taar du sama mbaax du sama dara waaw yàlla moo tudd chaque jour li nga xam ne mooy am ci nit ndax lii affaire yàlla la sëy ndax ay kilifaa koy xutba takk ko ba mu dëgër kon yàlla jërëjëf alhamdulilahi rabil alamin jërëjëfe borom Touba. tey ñu gis ne yaram tàng xaalis bi fi maye man ma ne mosoo waaw euh, man dafa am ñoo xam ne dama leen a tàggat muy bongomaan yi fuñ ma fekk ma teral leen ndax ay xale lañ euh, jaare ci sama loxo ci sama métier moo tax fu ma leen fekk dama leen di soññ jox leen alal ju bari bañ xam ne leket bi mën na jur lu ne parce que bongo man mën na dem ba nekk lu ne ci àddina ay nit lañ dañ ci bokk moo tax fu ma leen gisee damay am aal lu ma am may leen ko pour ñu gën a xam ni mbir mi am na dara. rek la gis ne sa mu ñëwee néew rek desal ci biir dafa daal di ñëw jàppale la ci li nga xam ne nag mooy bés bi di waa kooku man ak moom du ñu ñaar benn lañ. Hmm? man ak moom du ñaar benn lañ muy Pape Cheikh Diallo euh, dama koy ñaanal moom itamit yàlla na ko yàlla teg loxo sàmm ko ci barki Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay waa kër Serigne Touba lu ne mën naa dal ci suñu kaw mais sëñ Bamba mën na cee teg loxo loxo ba du metti ñaanal sénégalais yëpp ñi amagul jëkkër yàlla na leen yàlla may euh, te mu yomb leen lool ñi am ba pare yàlla na yàlla dox ci seen digganteeg seen jëkkër yi def ci jàmm ak salaam kese ñi nga xamante ne nii nag dañoo génn yàlla na leen yàlla dugalaat parce que jigéen euh, bu suñ borom euh, sàkkee jigéen ju baax sëye ko war ah ñun li ñu soxla suñu jëkkër moo ñu ko mën a jox moo tax chaque jour dañuy ñaan yàlla mu ñuy may jëkkër moo tax bu ñu ko joxee dañ ciy dugg ba mu neex waaw bii na nekk suñu dernière jëkkër yàlla nañu ko yàlla defal ndax xam nañ ne ay sëykat lañ ndax fépp fu ñu jaar ba fa trace ay sëykat piir dëggantaan lañu yàlla nañu yàlla defal muy suñu dernière jëkkër mais ndogalu yàlla jàmmanu ci dara chaque jour dañuy sabablu yàlla bu ñu nekk célibataire ndax wóorul gàllankoor yëpp ci biir célibataire la ne

non man jëloon naa. ay waay buur nañ daje fële. bon exclusivité ah. maa ngi doog a xam ndakate pour Serigne Saliou ñaanal doo soxla. maa ngi doog a xam ne ndakate pour message bu yëkkati te doo iñaan ba pare nga ànd ak sama xarit sa ménagère bii nga àndal est ce que xam mooy réew ji nga gis dinaa la mosal ci moom ñaari baat parce que xa amaana dinañu ànd rek mais am na lu ci nekk loolu ci xam gis nga kii bu mbakaw la nga xam ne intellectuel la daal daa compliqué moom balaa mu daan tëdd day wax ak moom bëri na lu mu xam ci réew mi loo xamante ne tant que man mii waxuma la ko mënoo ko xam parce que surtout service boobu grand théâtre bëri na lu fay am tant que woowuñu ko du am ba ci boîte bu mag bii ngay gis nga baaramu هو القدير الذي ديا يواسلني إلى منى

na tëye mu ñëw ci torop nga xam ne nag am na fu ko jëkkëram teg yow kuy si dëkk bi dina la nax ndax yaa ngi yàlla ba mu ci am yaa ngi wal mi gërom ta yes wa taxaw ne leen

waaw dama bëgg nga ñëw tagal ma ci Serigne Thiam. Ah, d' accord ñu gis na yow it yaa ngi doon waajal bis bu rëy foofu ca grand théâtre bi ah, yàlla def ma jël ànd ci ndax mbas bi nga xam ne moo nekk ci même réew nun la def def ma dara xanaa cat rek ndax ñun moom lim ñu jàngal mooy nangu dogal nangu dogal suñu borom ci yoon woowu lañ ñu jaarale xam ne lu yàlla def bu ngeen seetloo suñu way yi way loolu yëpp lañ ciy jàngal rawatina nag euh, Sall ci réew mi ñëpp xam ko waaye nag wolof di wax naan bu yoon jeex baaxu si biir boo ñu yéegalaat. d'accord eh, jamono ji nag buñ ko wàcce waatee ñu yéegalaat ba à part grand théâtre lan la eh, nga xam ne nag moom ngay waajal jamono ji. waaw ku ne xam na ne ñu ngi ci weeru safar. bu ñu xam-xam màggal bi moom saa buy jub see rek ñu am yuñ ci def baax ko ñu koy waajal incha allah. d'accord ñu lay jaajëfal baax waay. jërëjëf merci. da nga toog ñu ne la muuru da nga xam ne muuru da nga jàpp dañ ko testé wala problème bi lan la cas bi cas bi loolu rek du xajul loolu après daal di def bu fa loolu mbir yàlla rek mbir yàlla rek da xam naa dafa jox soo bëggee ñu yaatal ko après yaa si mën na non soxla après yaa si mën na gën ma ci noonu wala ngay xaar gars yi ñu ngi ko wala xajul ci mbir mi mais pare nga bu gars yi ñëwee pare nga dinañ ba ci ay na